ca Joal Fadiouth la Amadou Ba daal di ubbee ci talaata jile tournée économique bii ci département bu Mbour. premier ministre bi la daal dina amal visite ca këru juddu bu point président ba woon di Léopold Sédar Senghor nga xam ni alalam ji nekk ca France état bu Sénégal daal dina ko jënd bu yàggul dara. conservateur yi lé di sàkku ngir ñu wutal ab statut spécial kër gi lé. la République est née dans cette maison. Et c'est pourquoi peut-être madame va, vous a déjà lancé un cri de cœur, mmh. vu la de la maison pour la réhabilitation. Bon, ça a été déjà classé patrimoine national, mmh. mais je pense qu'avec votre appui, c'est plus facile de trouver un statut spécial pour cette maison. Voilà. candidat déclaré bu mouvance présidentielle bi lee daal dina seeti itam njabootu Ousmane Tanor Dieng ma woon bu parti socialiste bi nga xam ni allié politique la bu alliance pour la république. Tanor patrimoine Sénégal yëpp la ñu ñëwoon fii ñaanal ko du ku ñu war fàtte duñ ko fàtte mukk duñu fàtte njabootam mukk ñu ngeeg ñoo guddi ak bëccëg. لله رب العالمين آمين